bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin wasalim ñu ngi fii tey ci dëkk bu ñuy wax Kër Matouré Gningue Kër Matouré Gningue nekk euh, benn dëkk bu nekk ci région de Thiès ci arondis euh, ci arrondissement Notto Diobass ñëwoon fii nag bëggoon fi waxtaane tey góor gu ñuy wax euh, Ibrahima Gningue nekkoon saaba bàyyi Laay alayhi salaatu wasalaam mu juddoo fii ci dëkk bi nag dëkk bi ngeen di gis suñu ginnaaw nii waajurum bu goor wu ñuy wax Matouré ñi mo sañ ci dëkk bi ni mo nekkon borom dëkk bi Ibrahima ñi nga nag fi la juddé fi la maggé yalla dogalit mu nekkoon taalibe murit talibé Mor Mandumbe Mbàkke ca Xabaan yàlla dogal it eh, ci wote ali sallallahu alayhi wasallam bok ci mag ñi nga xamanteni baylay yi leen wowalon bopam ci batin mu bàyyi la mu jappon mu ñaanal ko jox ko ndigal mu gëm si ali sallallahu alayhi wasallam wasalaam nekkoon gu doy war góor gu góor gu doxit batin nekkoon na góor gu it fonkoon salaatu ala ndax doon nañ ko wax Ibrahima salaatu ala nabi ndax lépp lu mu daan wax ak lépp lu mu daan jëf rek mu ngi ciy dugal salaatu ala bu daan wax ak yow sax bu ekkitee kàddu bala ko àggal dina ni allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim buy nuyoo di jàmm sante sax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim la daan jàmm sante mu nekkoon it góor goo xamante ni bokkoon na ci góor ñi nga xamante ni daan nañu def ay kiraama ndax na ci ay kiraamaam ci gàttal képp ku ma sànni weddi bàyyi laay ci kanamam bu la joxee bant boo ko dammee balaa ngoon nga faatu ndax dëkk bii de daan na fi toog it di wax ni fii ma toog ba njaareem maa fi raw ak yeneen wax ak yeneen wax yu bari yoo xamante ni am na solo yàlla dogal ci dundam googu noonu eh, ci gàttal bi mu demee ba toll ci génn àdduna moom góor gi Ibrahima Ñing eh, woo na waa dëkk bi yëgal leen ni leen suba da ngeen di ami gan ni ngeen balé dëkk bi root ndaayi dëkk bi nak kilifa fi won nak jamono bobu mom mo nekkon chef de village dëkk bi té momit it feebar ko aduna nak guddi gi nga xamanteni ci la wara aduna sama papa man mi ma juru muy pat ñing euh, ñëw na tag ko am fu mu dem fo xamanteni ni kër su nekk ci biti kër gi rek lu wara mat ay 100 mètres ak suñu kër fi ñu dëkk bi suñu wajuru góor dem kër soxnaam sos ba muy ag rek la ne nda wolu ko mu ñëw bi mu ko wooloo mu ñëw mu woo ko ba muy ñett yoon ci turam ni ko laay maxtaar dama laa bëgg a gis rek dama laa bëgg a gis rek ba muy ñett yoon ndax moom it lu mu daan wax da koy répété ñetti yoon sama papa daal di génn dellowaat këram ba mu delloo kër soxnaam it dafa àggaat rek ñëwoo ko ni ko sa waajuru góor génnal àdduna mi te bi muy génn kër gi mu ngi ko bàyyi ci der bi mu toog yor kurus gi kon kooku wopp génnewu ko àdduna Euh, mu daan ko yëgle nag comme ni ñu ko waxee bale loon dëkk bi rootuloon daal dëkk bi xamal waa dëkk bi neen di ngeen di ami gan te daan na wax it ni bala maa génn àdduna ñaari nit laay doon daan na wax bala maa génn àdduna ñaari nit laay doon benn bi dina gàddu ci jaag bi benn bi dina tëdd ci jaag bi yàlla dogal nag bi mu génn àdduna Seydina Baye Ablaye Thiaw yàlla na yàlla dolli ko leer yàlla yàlla yàggal ko fi tam wér lool lool mooy ki nga xamante ni moo ñëwoon jiite délégation ñëw jullisee ko keroog it ba bàyyi si ba Seydina Baye Ablaye Thiaw ñëwee jullisee eh, maam Ibrahima dafa ñëw dëggal la maam Ibrahima waxoon ci ak dundam ndax dafa ñëw xam la ni kii tey jii day tëdd fii général bu lislaam la te waxoon na waa dëkk bi ni leen bala ngeen a xam kan mooy Ibrahima ñi ngi muy tëdd fii ngeen dem ba ca kanama ak kanam ak bu yàggee rek di ngeen xam kii li ko yàlla may di ngeen xam mooy kan moom Seydina Baye Ablaye Thiaw moom mas a def seede yooyu ci moom kéro gi la taxaw xamal wa dëkk bi ni leen ak mbolo mi ni leen góor gi de kenn du ko jullee muy jullee boppam keroog jaag bi buñ ko tégué daf ni leen ni ngeen teg jaag bi ni ñu ko ab diir mu tok tuti daan leen ki na bopam ba te bañ ko gaddé di yobbu ci xabru bayit na wax ni néew bi de dafa doon ñaar nak kenn na ngi tëdd ci jaag bi kenn na ngi ak mbolo mi di sikar mom bay Ablaye ciow kéro loolu la wax bañu aggé it mu jëf-jëf jooju bañu tégué tegee jaag bi ab diir mu tok ab diir lu tollok lu nit mëna bopam ci waxin ah mu ni kat nañu jullee rek formuler nax maanaam ci waxin euh, euh, olof dafa bari wax ñu def noonu daal di jël denc yàlla dogal it mu nekkoon góor goo xamante ni ginnaaw bañ ko dencee sax am na yeneen ak yeneen yu ci jaar yoo xamante ni euh, xam nañ dinañ ci ñëwaat incha allah rabbi ci gàttal waaye daal góor gu amoon solo la gu gëmoon bàyyi lay alayhi salaatu salaam la ku fonkoon salaatu ala nabi la ku yàlla mayoon la Eh, ba tax na bisub Kër Moutouré bi dal mu ngi nonu le 13 euh, octobre bi inshallah muy dimanche bi di ñew ñu ngi ñaan mbokk yépp rek ñu téwé ko muy bis bo xam te dañ koy def muy bisub sante yalla di ci sante yalla euh, ngir gëm gi ñu gëm bàyyi laay ak seydi alayhi salatu wassalam alayhi salam euh, gëm gi ñu leen gëm fekk mag ñi xalal ñu yoon wi ci lañuy ñuy di ci sante yalla bu baax di leen ci defal ñoomit ñaan mag ñi kon nak saabay bàyyi laay yépp ñu ngi leen ci wo di ci wo ñëpp rek di ñaan yalla sama borom defal ñu ci ndam